képp koo xam ne yaa ngi suivre suñu vidéo buy fàttee abonné te boo abonné bësa si cloche bi comme niñ leen koy waxee ngay am suñu vidéo su la neexee nga aimé ko ndax loolu moo ñuy dooleel moo ñuy yokk pas-pas ba li ñuy bëgg li ngeen di bëgg chaque ñu man leen ko apporter tey nag thème bi ñu leen indil muy lan jigéen boo xam ne ak góor bu du sentir plaisir parce que plaisir dafa doon lu am solo ci nit dafa doon loo xam ne sa inné da nga koy judduwaale mais ni nga koy judduwaale am na ñoo xam ne tamit dañuy nekk ak nit mais duñ si yëg seen bopp dinañ nekk ak nit mais duñ sentir plaisir loolu nag tey soxaloon ñu torop mu bari ñu bari ñoo xam ne dal na leen te amuñu si pexe xamuñu fu ñuy jaar tey ñu dem def si ay gëstu laajte si xam si lu bari ñëw tey indil leen ko liñ siy def nag yomb na donte de mu seen kër yi mais xel moom day fatu te tamit xam-xam mu jóge kenn xamu ko tey ñu indil leen ko mooy lan laaj laaj tubaab di ko wax laay moom ngay jël soo jëlee ñetti doomu laaj nga jël ko xooli ko soo ko xoolee nga écrasé ko su fekkee da am grattoir tamit mën nga ko gratter ba mu daal yow na ko def de telle sorte ko dina toj te ba pare dina mën a mokk nga jël ko jël li nga xam ne mooy lem muy miel soo ko jëlee nga jël si benn kuddu kuddu. Euh, bu mag nga sotti ko si laaj bi nga jëlaat beneen kuddu bu mag sottiwaat ko si sa laaj nga jël ko mélanger ko mu ñaari kuddu ñaari cuillère soo ko jëlee nga mélanger ko ak laaj bi nga jël ko naan ko loolu nag soo koy def danga koy def autant de fois que yow nga soxla ko ça veut dire saay bu xam ne ne yow yittewoo nga ko rek danga koy def soo koy def di nga dem ba di si sentir euh, sa bopp muy góor di jigéen ku ko siy def rek di nga dem ba di di nga dem ba

si li la leen waa Yelli TV de Mbour indiloon tey ba beneen.